Ladies and gentlemen mbokk internet yi ñuy seetaan fii ci Géejawaay Info TV tey nag ñu ngi fii ci Géejawaay sama gox fi nga xam ne fii laa yaroo aw lu dul Géejawaay waaw di leen wax ne nag tey ñu ngi seet si ndaanaan ki nga xam ne kenn dootu ko présenté fii ci àdduna fii nag lay xewee fii ci Hello Star fii ci Géejawaay Issa sama caméraman topp ma ñu dem daal di xool. yërmande daf koy xool rek mu ni mu naa ba di lu yéeme di ko nampal doom dérisoor la soo déggalee yaay teg ci déggal baay boy Sou maguetinha que dá uma cor garantir. Chibi vivara, chibi rapa, chibara. Chidi vidi vira, chabari vira. Mominga. Mamita, mominla. Topoto ko mominla. Buriala, terala. waa salaamaaleykum ñu may seetaan sama mbokk ah rawatina ak kilifa diine yi nag maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di leen wan ne nag tey la tey waaye suba suba sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp samay fans samay am di jàmm yàlla jàmm yàgg. waaw ñu dem dalal ñu bokk ñu dem léegi damaa bëgg rek ñu jàll si biir jàkkaarloo aas sama tëggkat kii li ma moo ma tëgg jàll si leen. so magge so magge teki da ñañi ge ganna ña ñaati ki ganna yow ta faage yo lele ki moo daanu mel ni moo daan yow ta faage yo lele sama maam daan ma wax naan yo lele mani jàmbaar ni le mel si di fay wérangul aas a ngi nii di nga waa ngewel gaa ngi nii ñii ñooy aas di borom ngewel gi di sama xarit di sama rak kii rek lan ko day baayam sëñ Cheikh ma toogee magam ñii lu ma mën ñoom ñoo ma ko defal barke sëñ Bamba tëgg rek lu ma baax ba ma fecc ñii ñoo tëgg Ferero ñii ñoo tëgg Bukki ñoo tëgg nga jox ma ñoom as ñu tëgg nga dégg leen waaw loolu fort kase asalaamaaleykum mbokk internet yi wolof Njaay dafa faral di naan wax waxaat du bëri wax mais dama leen di daal di nuyu waat rek ñu daal di tàmbali émission bi ñu ngi nii wax gàllaay tungu ne du teew ñu koy nataal gàllaay ah waa léegi salaamaaleykum maaleykum nuyu naa leen nuyu naa samay fans nuyu samay am di jàmm di leen wane nag tey gàllaay fërëram leen seet si mu ànd seeg nag ñi nga xamante ne mooy nag ñoom aas ñing ak Assane Faye sama papa tey daal fii dina mel ni supp lañ set naa ñëpp. waaw waaw ñu ngi fii nag ci géejawaay fii ku fi xam ne xam ne gàllaay ñëpp ko xam fii ci àdduna. gàllaay di doomu géejawaay. gàllaay di féete géejawaay. léegi bëggoon naa xam tey loolu lan la lay def. waaw ndax man moom. baxdaat bii falaa juddoo falaa yaroo falaa màggee falaa defee lépp. lu ma créé lépp nag fii laa ko créé wee man du ma génn sama koñ fii laa nekk fii laay liggéeyee fii mooy sama bureau barke Seera Fall nekk Baye Fall nag oyof wàcce sama bopp barke maam Seera Fall. wolof naan soo bañee li nga doon dafa fekk nga gën caa ñaaw waaw gàllaay tey bu ma bëggoon xam kan mooy gàllaay lan nga may daal di wax. boo bëggee xam kan mooy gàllaay. gàllaay boo ko bëggee xam da nga koy fekk fa mu dëkk kon ni nga def. Mhm. fii nga ma fekk nii. fii nga may xamee. barke Serap ndax ma lépp lu ma am fii la. Baxdaad bii ma dëkk fa amee lépp. xale yi nag dañ maa bëggal seen bopp rawatina mag ñi. ak sama yaay yi sama papa yi. di ma ñaanal. Galaay la boo ko bëggee xam fii nga ñëw mooy temps bi. macha allah léegi Galaay man bëggoon naa xam lan moo la dugal ci aar bi daf la neex nga dugg ci wala da nga am ay parent yoo xam ne dañoo nekkoon ci aar bi walla waaw man nag lu ma duggee ci aar lenn la. mooy Assane Faye mi taxaw. di sama papa. moom ma dugal ci aar. man doomu joolaa laa mais Assane Faye doomu géwél la ba pare ba dëkk ak nag ñoom aas njing ñooñ nag chaque jour seen kër la ñuy nekk bàq yi ma fecc yëpp ñoom ñoo ko tëgg. loolu ma duggee ci aar te aar dafa neex. barki Seera Fall. kon su ma déggee bu baax danga nga bëgg a wax ne dañ la dugal ci aar mais yow jëloo sa propre euh, mesure ne yow danga nga bëgg dugg ci aar bi. dëgg la Assane moom ma dugal ci aar. Mhm. mooy sam papa mu ngi nii taxaw. Mhm. moo ma dugal ci aar. Mhm, sa papa mi la jur dëggantaan. Assane Faye waaw moom ma dugal ci aar moom mooy doomu géwél. moom ma ci aar. Ah. ba tey yàlla def maa moom ñu ànd bokk benn vol voyage yi ñëwaat. lépp ci aar aar la leen bëgg. léegi yow galay euh, galay mi ñi gis ci télé bi muy def ay euh, comédie ak yoy non xam ndax parce que dañuy faral di personnage ak personnalité c'est pas la même chose. galay bobu mo nekk ni mhm. barki bu personnalité. Mhm. Si galay la fekk baax. Mhm. ndax nit ñi nak dañuy gis né li ngay def ci télé bi. pour ñom non nga mel. dédé lolu dañ ko zé rek man lu may ji. dama sama déguisement. kon nit ñi nu ñu demee seen bureau di liggéey ñu noonu lañuy def ci aar dañuy dem sol suñu lu rafet dem zee ji simeeku zee ba pare sanguwaat sol lu rafet ñëwaat ñibbisi aar dafa silwiise aar dafa noble la loolu laa bëgg Sénégal ñu xam loolu aar yëfi noble la barke seerafal loolu moom dëgg la parce que ku nekk fa nga dëkk rek nga am. léegi gàllaay bëggoon naa xam tamit yow lan moo la gën a naqari ci aar bi ak tamit lan moo la ci gën a neex. waa aar moom lu ma ci gën a nakari lenn la mooy ñu ñuy rax ñu ñuy rax rek moom a metti ci aar mi ndax am na ñoo xam dañuy dugg suñu biir rax ñu moo ñi nga xamante ne dañuy euh, changer couleur teint wala ñuy rocc ay xam nga ay tuñ ak affaire yooyu noonu loolu moo a metti ci aar bi ndax dañ ñoo rax ndax dañuy teg ni artiste yëpp noonu leen mel moo tax ma la aar yëfi noble la. Mhm. barke Serafal. Mhm. kon su ma déggee bu baax daal da nga bëgg a wax ne daal mooy ñi nga xam ne dañ leen di jugé négativement ñi nga xam ne dañoo ñëw ci aar pour yàq seen der ñooñ daal ñoo la gën a naqar ci aar. looloo ma métti léegi loolu si gën a neex nag. lu ma ci gën a neex mooy. Mhm. aar lu ma ci gën a neex mooy. dañoo bëggante ñu bëggante suñu biir. ah am ci suñu teraanga tabax suñu kër ndax aar moo ci may ñu si bari kër may ñu oto duñu yëgal avion ngay dem di ñëw. kon sama papa Yelli Cuun ma koy nuyu à mhm. moom moo lépp moom la mhm. Africa ndigal groupe bu nekk ci géej gi muy Yelli Cuun fa laay répété mhm. léegi bëggoon naa xam yan lien nga am ak Wally Seck parce que euh, étant vu que ni étant donné que ni dama lay gis à chaque fois ci ay soirée mag yooyu noonu ma bëggoon xam waaw Wally Seck nag moom ak sama papa Yelli Cuun la moom wax Yelli Cuun la Wally ñi moom dañoo ànd liggéey ñun ñoo tëgg soirée Genève yóbbu Wally Seck mu zee ko mooy Suisse bee paase ñun ñoo ko tëgg ñun Africa Ndigal kon loolu groupe la moom wax yëli cuun la ba si ñun barki Sëriñ Bamba loolu la te nag Wally nekk Baye Fall nekk ki nga xamante ne nag day jël alalam di ko bokk ak nit ñi après mu nekk Baye Fall looloo ma gën a neex ci moom. Mhm. Bac Serre Fall. Mhm. mais Galaye xam nga au début yow yaa ngi ne kon Galaye en personne ne ko fecc kat ne ko woon dara. euh olof ndjay naan tout début est difficile te gis na ne tay ji ba nga wootee ñepp ñew mag yeeg xalé ndaw yeeg ñepp ñew ñëw yaw ni nga melo nak bu ñëk bi est ce que dara changer na ci ñi nga daan andal parce que dañuy faral di naan nit bu siwé rek day bàyyi ay moro mom dem xooli leneen lool la bëggoon xam na nga léralal mako parce que lool mom seen bàq la yeen at jere jëf contane na ci yow di uh-huh. nga nak man mm-hmm. loolu man gëwuma loolu ndax man ñama daa andal ba léegi mi asana ngi ni sama télé bi boko ko ma mom ngay gis. Mhm. wa groupe chat ñi ngi hmm kon fi dal na na jax tay jaay day jax Africa Ndigal ngi ñew ok barki Serigne Bamba. Mhm. ta nak na la xamal wa groupe chat mhm. ñom le deux bi di ñew Ravena ay club dañuy def sen soirée fallo ngi né sen Ousmane Diop borom Seras sama mak sama xarit bëggal ma bopom. bamay boy ba légui mu ngi nii otoom la gaare kat katam ñëw seetaan si ma ñëw sama bis bi barke Sëriñ Bamba lu olof Njaay di wax rek comme chaque jour ki tax ngay tax boo goree dëgg taxawal ne ko yaa tax may tax léegi bëggoon naa xam tamit gàllaay euh, xam nga léegi wax nga ko léegi nga ne am na artiste yoo xam ne dañ leen a rax bokkuñu si yéen tey boo amoon conseil ba nga leen di jox lan nga leen di wax lu ma leen jox mooy comme que aar lañuy def mhm. aar boo koy def na ngay nekk Baay Faal da koy gëm mhm. koo caaxaanee mhm. bañ koo caaxaanee gëm li nga doon aar noonu lañ koy jàppee mais aar boo ko defee affaire ñaax fayda ñaax fayda ngay gis aar dañ koy gëm kon ñu nekk ci bureau yi ni ñuy demee di xëy sol seen costume noonu ngay solee sa yére yooyu tamit dem répété ji ñun dañoo yor bureau aar dañuy may lu ne barke sëñ Bamba aar tax ñu yéeg vol mécanicien taxul ma yëg avion walla tôlier wala jaay sama tànk yi fecc mi bukki bi moo ma yéegal avion attention votre ceinture <laughs> barki Serigne Bamba ma ànd ak Wally Seck dem tournée ji ak yëllu cuun ñibbi si waat mhm. liggéey. macha allah kon ko nekk la danga nekk da ko gëm gëm sa bopp if job to believe in yourself comme ni ma koy faral di waxee rek waaw déggu ma nag damay jàng rek léegi gàllaay bëggoon naa nga présenté ma sa gars yi fii daal di jax comme que yow nee nga lépp ambiance man nag tey laa a macha allah. barke Serigne Bamba nee naa leen man moom ambiance laa gëm. waaw fair play galaay ambiance fair play. waaw boo aas a ngi nii aas ñi nga ngi nii a ngi nii. yow ba gaa yi. waaw ku ne fa nga ana aas. aas a ngi aas. aas kër junjun yi. aas a ngi noonu. arama ye sama asana. tey laa waaru dem naa fi ay dem yu garaaw léegi nag li naan yéen géwël yi moom jàngoo leen tey nag bëgg naa na nga prouvé ne yéen ñi am ngeen tuuti xam-xam ne gàllaay bëggoon naa laa laaj ci maladie bii nii lëmbe dëkk bi muy coronavirus lan nga ci xam. <laughs> coronavirus xaw ma coronavirus <laughs> lu ma ci wax xam mooy lan na ci gars yi génn seen xel mi ñun suñu dëkk bi ñu nekk mm. kilifa yu baax yi dañ ñaan mm-hmm. muy Alaaji Malick muy Serigne Touba muy Baye ñas kilifa yu baax yi dañ fee ñaan kon ñun feebar yooyu mën nañ koo dégg nii mais du fi du fi du fi kii ndax choléra amoon na fi. am nañ fi kaa am nañ fi ak leneen leneen non yooyu dañ koy dégg nii rek mais ba léegi gisoo ko. ah da koo gis yow da koo ah, gis. gis naa koo gis mu leer la. Hmm, waaw waaw da koo dégg rek maa gisoo ko. <laughs> Ah, baax na. ñun daal senegal nañu set. si bëgg sunu bopp. kon jàngoro yooyu yëpp ngay dégg du fi ñëw du fi daal kenn ndax déggoo mun a jàpp na fi sénégalais amul. ah kon baax na mais daal en tout cas moom lu gën mooy fagaru daal moo gën faju. waaw dëgg la fagaru moo gën faju mais tamit nag ñun xam lan moo lan war a faj ñun lan leen war a faj jàngoro ban moo gën a bon mm-hmm. mooy jàngoro soxorante bi mm-hmm. loolu leen war a dindi soxorante. ñun jàngoro boobu la ñu am de mais jàngoro yi yëpp da nga koy dégg rek mais du fi kii dara man bëgguma sax di ko dégg. Hmm. gars yi ñoo ko déggandoo xol yi nañ ko raxas ba mu set. nañ ko raxas rek. iñaan baaxul iñaan wóorul na ñëpp bëggante parce que Sénégal réewu jàmm la ni ñëpp bokk xol yi bokk lépp one heart ñun ñëpp rek ñu àndandoo booloo doon benn. ok kese te nag. ñii taxaw nii nga gis muy waa groupe chat. du mën a sax groupe mais ñii famille leen barki Sëriñ Bamba ñoom nag ñi ngi waajal le deux fii si Ravenaay club bii soirée. incha seen anniversaire anniversaire bu rëy moom la ñëpp di waaj. Mm-hmm. barki Sëriñ Bamba groupe chat. groupe waaw groupe chat moom boo ko déggee war ngaa xam luy groupe chat. Mm-hmm. àdduna ñëpp leen xam. Mm-hmm. ñii maa ñoom a bokk fu ñuy liggéeyee. Mm, macha allah famille leen nag. d'accord yàlla jàmm yàgg. amiin. waaw baat Serap Fall mais nag jour boobu tamit dangeen ngeen di ñëw le deux bi. d'accord loolu problème incha loolu baax na. léegi balaa ñoo terminé bëggoon na ne ñu ngi si mois de mars te ku ne wax mois de mars wax euh, mois de la femme. waaw tey nag euh, bëggoon nañ nga wax ñu tuuti ci journée de la femme bii di waaj a ñëw. waaw sargale jigéen yi. sargal jigéen moom lu neex la xam lu tax mu neex. Mm-hmm. ndax sunu yaay yi ndax aas ñi ngi ma lay wax nii am na lu muy wax daan ne sargal jigéen war na ku ne ndax jigéen nañuy defal sunu meree jigéen ay sunu yaay te ñoo ñuy jural sunuy doom suñu meree ñoo ñuy defal kon jigéen jar nañu sargal leen ndax sunu yaay yi dañuy sonn si ñun trop sunu rakk yu jigéen dañuy sonn ci ñun sunu mag yi ba sunu doom yi barki Serigne Bamba kon sargal jigéen war na ku ne lu leen defar rek doyul. Mhm. barki Seera Fall. pour man moom jigéen moom à chaque fois dañ ko war a sargal parce que jigéen moo ñu jur. mooy suñu yaay suñu waa loolu dafa leer. léegi l'émission tire à sa fin balaa ñoo paxe nag di ñu wane foo mëne ndaxte gars yi fecc nañ nga wan ñu ne mën nga ci biir boor mën nga ci bee boor. waaw balaa ñoo terminé bëggoon nañu nga gërëmal ñu ñi nga xam ne ñoo ñëw tey fii ak di ngay sant daal nga wax sa de la fin daal balaa ñoo ko. waaw nag. sama wa koñ sama wa koñ surtout mak ndaw ñepp ma ngi leen sama magi, sama yaay sama papa yi sama rakk yi ndaw ndaw yi ba ci xalé yi nga gis ni di sante ñepp di sante nak sama wa fami bi taxaw wa groupe chat di sante sama papa ji taxaw di asan ha ah, mbaye ngi ni taxaw sama papa la matar sama papa la ra ngi ni sama papa la Assane Faye nii suma papa la ak Fallou Galas kon lii famille la ak Zo ak Issa waa Damm Ndig di nuyu ñëpp animateurs yi ñoom Seydou Gadio Seydou Gadio laa koy jaarale mu nuyul ma ñëpp. macha allah léegi yéen ku leen bëgg a jot lan lay def pour woote ci wàllum cérémonie mariage ak affaire yooyu yu demee noonu. waa loolu boo ñu bëggee soxla si affaire mariage ak yooyu. Mhm. da ngay jokkoonteeg mhm. waaw Matar a gérer loolu. fii internet yi. waaw jeex na numéro bi daal. Mhm. jëlal 78. 78. waaw 474. 474 ak ñaari 5. 474 ñaari 5.

car cette génération a une mission à remplir soit elle l'a remplie ou soit elle l'a trahi. donc nous avons dit que bu caméraman je di Issa Je suis le DG Je di merci beaucoup. Thank <laughs> you.